résultats qui innombrables de Cheikh Ibrahim Niass, euh, mais aussi la réussite de son école. Entre autres thèmes, il y avait euh, les avancées techno technoscientifiques face à l'orthodoxie islamique et on a pris le prétexte de ce thème pour parler sur un ouvrage, de Cheikh Ibrahim qui est Al-Hujjatul Al Baligha. Il une étude analytique sur euh, l'ouvrage de Cheikh Serigne Mbaye Niass qui est le parrain de cette saison euh, euh, Oustaz Tamsir Sarr s'est penché s'est penché sur son ouvrage Les vents célestes ou An-Nafahat al-Qudsiya les thèmes d'aujourd'hui seront traités par d'éminents panélistes des savants des chercheurs mais aussi des praticiens dont euh, El Hadji Abdoulaye Koundoul qui est un conseiller technique auprès du Premier ministre de la République du Sénégal euh, qui nous parlera de l'AES et de la CDAO. Euh, quels moyens, quelle inspiration tirer de la pensée et des enseignements de Cheikh Ibrahim pour résoudre le conflit qui existe entre ces deux organismes-là, mais aussi pour huiler les leviers de l'intégration, de l'intégration africaine. Il y a aussi un, un thème sur au Koweït, euh, un ouvrage de Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop qui a été publié euh, récemment Euh, j'incite tous mes condisciples et nos chœurs religionnaires à acheter cet ouvrage-là. Euh, c'est un ouvrage qui défend l'école de Cheikh Ibrahim, mais aussi qui défend l'imam, l'imam de la faille de Tidjania. Il y aura des thèmes très, très intéressants, Inch'Allah. Je ne vais pas m'étendre sur le contenu de ces thèmes-là. donc dañoo tàmbali rek pour sant yàlla wax na tey mooy ñaareelu bés ci symposium bi ñu am teranga gu mat sëkk nag ci teewaayu suñu sëriñ suñu nijaay Cheikh Mouhamadul Qorachi ibnu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu nga xam ne damaa njëkkee ay ndombu tànkam doo ko wax lan la doog a wax li mu doon wax naa ne mooy secretaire général ci mbootaay gi nga xam ne moo takkee réewi jullit yëpp waaye nekk na ñetti yoon di député à l'Assemblée nationale du Sénégal waaye doom la ci Mawlana Cheikh Ibrahim di doomi deret di doomi roxo nekk ndimbal ci intellectuel yi ak ci turas patrimoine Cheikh Ibrahim bi ku ne gis na ne Mufidul Anam fatwaay maam alaaji yooyu noonu moom moo ko publier Euh, rasaayil Cheikh Ibrahim yi nga xam ne wul daxaan mooloon na ko moom moo ko édité publier ko euh, nekk ku fiir ci défendre faydu bi ak orthodoxie ak njàngale moo Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu toujours symposium bi dafay nekk occasion pour wax leen jéego yi nga xam ne euh, projet histoire général de l'écriture de l'histoire de la fayda ak de la traduction de la vulgarisation des œuvres de Cheikh Ibrahim mi koy def ci ndigalu xalifa bi chaque année danañ indi ouvrage yi nga xam ne moom lañ produire ren publier nañ euh, Naylu Nafaz bil awdi ila al Hijaz nga xam ne mooy 1952 note poétique de voyage yi Cheikh Ibrahim defoon traduire nañ ko ci français. traduire nañ diwaanu Jabril Kasri bi Cheikh Ibrahim def ci tàggantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam traduire nañ diwaan Tuhfat Tuhfatu Ataa'ibi Anfas ci français docteur Mouhamed. Mamadou Balde mi nga xam ne ci panéliste yi la moo ko moo ñu ko traduiral ci français traduire nañ Mutahhirul Qulub El Hadj Abdoulaye Niass ci français gannaaw boo xam ne daaw traduire nañ ko ci anglais ki ñu ko traduiral di Cheikh Ibrahima Abdallah Dibois mu ngi fi teew bokk ci panéliste yi euh, waaye bëri na ouvrage yoo xam ne tamit mbokk yi ko traduire ay mbokki taalibe lañ euh, dañ ci sawar toujours pour annoncer ko wax ko lecteurs yi bokk na ci Kaashiful Albaas ci français xam ne suñu mbokk Euh, Mathias Lechon dëkk ca Luxembourg di kàngam di intellectuel di taalibe Baay moo ko def waaye xaraayit irshadiya fi aalami jawharatul kamal nga xam ne dafa dajale kàngam yi chara jawharatul kamal nga xam ne bokk na ca Sidi Ahmed Sukayrij ak euh, Sëriñ Ousmane Ndiaye liñ chara bi ñu def mu traduire ko ci français boobu tamit bokk na ci ouvrage yi nga xam ne teew na fii tey duñ guddal daal ci wax ji dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu tawfiix may ñu nopp yuy dégg tey jëriñu te may ñu bokk ci ñi nga xam ne toogaale nañ ak nit yàlla ndax Cheikh Ibrahim dafa wax ne da leen bëri jotaay soppe yi da leen ko bëriw rawatina bu ko kenn ci mag ñi teewee amut sikk nag ne kenn ci mag ñi teewee na ko muy sëriñ bi di Cheikh Mahamadul Qurayshi ak doomam yi nga xam ne ñoom la feggoog Cheikh Babacar ibni Cheikh Alhaaji Abdoulaye Niass Alxalifa mi nga xam ne mooy président séance bi nga xam ne moo nar a doxal jotaay bi tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ليلة المولد الذي La Jamiatou Ansaroudine Sénégal vous présente le symposium international du Maoulid de Medina Baye 2024 les 11 et 12 septembre à la Maison des Hôtes de Medina Cérémonie officielle d'ouverture avec un chronogramme, récital du Saint-Coran, discours d'ouverture Hommage aux parrains. Début des panels du premier jour. Table ronde, panel en arabe, français et wolof. Entracte poétique suivi d'une leçon inaugurale sur le rôle de Cheikh al-Islam El-Haji Ibrahim Nias dans la revivification de la sunna prophétique. Panel numéro 1. La dimension diplomatique dans la mission sacerdotale de l'imam de la Faïda Tijaniya. Panel numéro 2. La Faïda

et son messager de toute éternité. Le modèle dans l'amour de la voie prophétique est le fils d'Abdallah, descendant de la très noble Jayla. Quelle généalogie Imprégnée d'islam, de science et d'amour prophétique, jusqu'à ce que le monde voie de façon authentique que le sourire des bails est semblable à cette lune levée, sur ce mois particulier, celui du prophète bien-aimé. Si mon esprit se concentre sur cet amour, il risque de se noyer dans des océans de perplexité. Cette belle lune qui brille, je la vois se refléter à l'infini, dans les cœurs des disciples en nombre inouï. Assoiffés, ils s'abreuvent au souvenir de la naissance de celui qui a déchiré le voile de l'obscurité. Au matin, ils se dispersent après la prière et demandent Allah de revenir dans la cité de leur Père, ceci afin de témoigner à nouveau que la lune s'est et de compter ah voilà voilà li ma wax maa ngi Merci à Ibrahim Jaquel pour ce poème vibrant et émouvant. Euh, nous allons ensuite énoncer quelques thèmes de cette seconde journée du symposium international du Mauloud de Medina Baïnias. Euh, nous aurons AES-CDAO, quels moyens de sortie de crise tirés de la pensée de l'action de Cheikh